asalaamaaleykum yéen ñu ñuy teewlu à chaque fois sur bpactu.com ñu ngi leen di nuyu bu baax ku ci nekk ci turam ak ci santam tey samedi 23 janvier 2021 ñu ñëwaat ak yéen ci yéen kaay ma ci ànd ak Amina Ndiaye maa ngi lay siyaar. siyaar naa la Omar di siyaar képp ku ñuy suivre saa su nekk sur la bpactu di leen dalaatal jàmm seen xibaar revue de presse doomu laaj lu wànq di dox noonu. loolu la wànq di dox noonu xam nga ni fa laa jëm. <laughs> moo ma jaaxal maa ngi nii daal toog tey ci samedi bi. damaa xamul da ngay foo seetloo moo la fi tax a ñëw. journal bu critique la ñu koy daal di ubbee Amina mu daal di fësal ki nga xamante ne ni moom mooy le ministre de la santé et de l' action sociale Abdoulaye Diouf Sarr mu yëkkati kàddoom rek ci li nga xamante ne ni moom mooy li leen jaaxal fi mu toll nii mu yokkute cas communautaire yi ak yokkute cas grave yi ak dese yi. comme ni nga ko waxee rek cas yi yokk na lool décès yi yokk na waaye li nga xamante ni moom moo ci gën a yéemeeti muy cas communautaire bi ce qui signifie que euh, virus bi mi ngi circuler euh, ci euh, ci lieu public yëpp lu ci mel ni marché yi lu ci mel ni transport en commun yi ndax saa su nekk rek bu ñu gisee cas communautaire xel mi ci loolu lay dem fu nit di dajaloo loolu moo waral cas communautaire yi di bari ba tax na Abdoulaye Diouf Sarr daal dinañ préparer benn riposte contre les cas xamuñu nag riposte bi lan lay doon mais dina ci ñëw ak ñun incha allahu rabbi ñu ngi koy xaarandi Amina Ndiaye waaye beneen leneen li nga xamante ne gis nañu ko mooy disparition Diary saw boobu ba tey journaliste ñi ngi ciy wax parce que nekk na disparition boo xamante ni ñu bari jàppoon nañu kidnapping la waaye demeewul noonu. comme yi nag am na ñoo xamante ni deux versions lañ ci yoroon ñeen ñi ci ñoom ñoo ngi doon wax naan dafa demal boppam ñeneen ñi euh, doon wax beneen version waaye dafa mel ni ñu doon wax ni moo demal boppam tey ñoo daal am dëgg ci ñi nga xamante ni ñoo ko doon euh, défendre waaye ab psychologue nag moom moo daal étudier dund dafa yaakaaroon ne tey ji dina am benn vie meilleure dafa am loo xamante ni daf koo rêvé woon am dafa am loo xamante ni da koo rêvé woon dund lépp nag mu nekk loo xamante ni tristesse la ci moom mu nekk loo xamante ni naka rek tiis la koy dund loolu moo tax mu daal di fuir waaye passé à l'acte boobu noonu nga xamante ni moom la def psychologue bi daal dina koy jàngat yaakaar naa ne nekk na jàngat goo xamante ne ni jàngat gu ñëpp doon xaarandi la jàngat la gu am am solo moo tax journal bu l'observateur itamit def ci benn zoom bu yaatoo yaatu ci disparition Diary Sow ak li nga xamante ne ni moom mooy réapparition réapparition disparition réapparition jaari saw lu toll ci mën nañu sax euh, plus de trois semaines ñoo ngi naan jaari saw par ci jaari saw par là ba mu réapparaître tamit nag ñeen ci sénégalais am nañu déception ndax ñu ci bari dañoo jógoon lekk takku ngi jàppale ko rawatina étudiant yi nga xamante ne ñoo nekkoon ca diwaanu Paris euh, les révélations d'un clinicien benn psychologue nag moom moo def comme ni ma la ko waxee fële rek moom la fii fa salaat euh, jàngat acte bi nga xamante ni moom la jaari saw def. ak bouleversé bi nga xamante ne bouleversé na ko éthique sénégalaise bi ñu ci bari daal dañoo jàpp ni daf ñoo dévaloriser. am na lu am solo loo xamante ne nii daal liggéey nañu ko ci te ñu ngi koy xaarandi ba tey ci l'observateur mu am question boo xamante ne Amina Ndiaye dañu koy laajte rek lii lan mooy yokku cas communautaire yi lan mooy yokk Covid 19 ci réew mi. ñu daal di ciy nataal koo xamante ne nii masque am yi nga xamante ne moom la ñuy sol yére moom la jël def ko masque. Amar li nga xamante ne mooy yàq lu yokk cas communautaire li nga xamante ni moom moo koy yokku loolu ñu daal di ñëwaat ak ñun ak deuxième vague de bi ñu ñëwaat ci li nga xamante ni moom moo di masque en tissu euh, bu ñu fàtte ni euh, corona bu muy soog a ñëw dañ ñëwoon tissu yi baaxul masque chirurgical yi ñoom ñoo baax à un moment donné ñu jékki-jékki daal ni masque yi baax na ndax gisoon nañu masque chirurgical yi du ñëpp ñoom ñoo ci mën a am accès tey nag ñëwaat nañu def révélation ci masque yooyu. yaakaar naa ni nekk na révélation yoo xamante ne révélation yu am am solo la. waaw nee nañu am na ay risque am na ay risque euh, ci euh, deuxième vague de contamination bi am na ay risque bu baax a baax a baax ci virus bi ni mu dikkaatee maanaam ni mu defaatee retour. Amina Ndiaye leneen li nga xamante ne nii gis nañu ko mooy ñi nga xamante ne bu njëkk ba ñoom ñoo doon toog ci télé yi doon ñu bégal doon bégal suñu ay kilifa. doon liggéey liggéey bu am solo ci wàllu animation ci wàllu journalisme ci wàllu communication tey ñoom la journal bu l'Observateur daal di fësal ngir xool seen dundin ñoom. ancien journaliste yi ak euh, ñi nga xamante ni daal ñoom la ñu gënoon a ràññee ci kanamu tele bi euh, ku ci mel ni euh, journaliste bi ñuy wax Yves Jacques Saw Jackson Euh, ak ki nga xamante ni moom moo di Oumar Seck Mignal Baro kenn du ko fàtte xàmmee nañ ko bu baax a baax ci journal 20 bu RTS 1 euh, daa jiitu rek Daouda Ndiaye ak Mamadou Malaye Diop ñu nekk ay anciens yoo xamante ni ay vedettes yu télé nationale lañu ci RTS 1 la ñu jaar ñu ci bari ay euh, seen référence lañu ñu daal di ñëw nag ci seen vie passée ak seen présent actuellement naka la ñuy def. en tout cas nekk nañu ay nit yoo xamante ne nii war nañu yoon bi xale yu baree baree bari nañu yoon bi mag ñu bari itamit yu fi nekk parce que ku ci nekk rek. on peut dire que professeur nga woon ku ci nekk da doon jàllale di jàngale di yeete di yeddaate leneen li nga xamante ne ni Amina Ndiaye moom la ñu fanaanoo démb ginnaaw bi ñu ko yendoo muy génnub àdduna ki nga xamante ne ni moom moo géré woon Hizbut Tarqiyyah moom moo nekkoon membre fondateur bi moom moo fa nekkoon ki nga xamante ne ni moom moo doon géré lu baree bare bari ci boobee bërëb ñu koy ñaanalaat rek suñu boroom jéggal ko woyofal suuf ci tas ñu ci barkeem parce que nit la koo xamante ni démb boo dégloo témoignage rek sa yaram day daw. Amin Omar Amir lañ ci daal di tekk ki nga xamante moom moo euh, tey ji daal di nañu euh, dudd mi ngi ci beneen monde mi ngi ci dëgg tey ñun ñoo ngi ci caaxaan di ko ñaanal yàlla mu jëm yiw daal di ko fay fekk suñu borom daal di ko fay sàng maraanu yërmande na keneen koo xamante ni moom moo ko uutu tey ji ndax nee nañu ki nga xamante moom moo di Serigne Atou Diagne Diagne jàngoro coronavirus moom moo ko yóbbu. Amina Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla yiir mbalaan ba fa mu jëm mu fekk fa ma ak suñu borom mu rëccu li mu doon def fii ci àdduna. yaakaar naa ne nekk na lu am solo ba tax na journal bu Vox Populi itamit daf cee daal di xëy rek parce que nekk na koo xamante ne nii on peut dire que c'est perte nationale parce que. ki doon dimbali ndaw ñi la ki doon ñaax ndaw ñi la. Hizbut Tarqiyyah ku ko xam-xam ni nekk na ab regroupement boo xamante ni ku ci dugg tey ji ci yoonu njub ci yoonu yàlla lañ lay jëmale nekkul benn yoon boo xamante ni ca safaan bala dëddu na àdduna nag ki nga xamante ni moom moo di Youssou Diop moom moo ko daal di euh, succédé euh, di ko ñaanal yàlla rek euh, yen bi daal di oyof ci kawam. yaakaar naa ñaan la goo xamante ni ñun ñëpp moom la ñu koy ñaanal ki nga xamante ni moom moo ko utu leneen li nga xamante ne ni journal bu Vox Populi ñëw na ci mooy mbirum mbëkk ma. fu ne la ndaw doon jóge di jóge gaal di jox quatre cent mille wala trois cent jàpp cinq ngir dem tukki mu nekk loo xamante ni ñun ñëpp la métti woon waaye am na ay révélation yu bees ci amaan waaw dañoo ñëw ci plus de financement bu l'union européenne bi rek ak résultat mitigé yi nga xamante ni moom la Sénégal am milliards yu bari yi nga xamante ni moom la ñu investir ci euh, politique migratoire bi jusqu'à présent daal on parle des milliards de francs CFA on parle des millions ko ci te ba waxaale wu ko diggante cinq jàpp 2019 lu toll ci 200 milliards de francs CFA yoo xamante ni mobilisé nañ ko selon un rapport de la fondation. am na solo trop Amina Ndiaye journal bu record dañ koy daal di jàllee rek mu daal di ñëw ak ñun nag ci mbirum président su CAF parce que boobu ba tey nag bëri na ay candidats yoo xamante ne nii ñu ngi ci yëkkati seen ay kàddu am na kenn koo xamante ne moom mooy euh, mamatu Touré nekk kenn koo xamante ne tamit président la ca Fama Foot. mooy yëkkati ay kàddoom rek ndax jàpp na ni fi mu toll ni Afrique de l'Ouest ñoom ñoo war a nekk benn pour jiite li nga xamante ne ni moom mooy kaaf waaw loolu la wax neen Afrique de l'Ouest benn candidat kese la war a am kenn nit donc moo war a représenter Afrique de l'Ouest ba mu daj yëpp ci li nga xamante ni moom moo di président su CAF bi euh, selon euh, ki nga xamante ni moom moo di Mamadou euh, Touré nekk président FEMAFOot loolu daal la jàpp dafa daal ni Afrique de l'Ouest benn bopp la te benn moo ko war a ñëpp nekk ci ginnaaw dooleel ko. loolu nag moom bu dee dina am nag faaw ñoom ñu waxtaan seen biir ba fexe doon benn doon benn say parce que Afrique de l'Ouest bari na ay dëkk yoo xamante ni ñu ngi fi. faaw ñu waxtaanee loolu bu nu ñoo xëy xëy rek ñu ne benn candidat la ñu war a am leneen li nga xamante ne ni moom moo war ci dimanche bi diggante Manchester United ak Liverpool fa coupe la mu nekk match bu neex waaye fi mu toll nii beneen danger mi ngi war ci diggante Sadio Mané et les parce que nag Old Trafford lañ jëm. Old Trafford la ñu daal di jëm FA Cup match Manchester United yi war a dox ci digganteem ak Liverpool tey jii ci dimanche bi lay daal di doore Sadio Mané et les restes nag encore en danger bu ñu deful attention bu ñu pertaatee match bii nii dina doon chute bu fatal ci ñoom. am na solo trop 19e journée ci Italie Serie A. fi mu toll nii Milan AC moom moo war a jàkkaarloo ak Atlanta mu nekk marché boo xamante ni enjeu bi dina ci bari lool. Milan ak Atlanta ñoom ñaar ñoo war a tasante ci 19e journée bu Serie A bi ci compétition bu Italie bi comme ni nga ko gisee rek boobu tamit match bu nar a neex la Omar. MMA démb la doomu caare bi def lu am solo daal di kaawate ki nga xamante ne ni moom mooy Alain Ngalani di ab Camerounais ci moins de cinq cinq minutes dong Reug Reug daal di koy gagné mu nekk loo xamante ne ni démb ba tey ñu ngi koy waxtaan quatre fois champion du monde la nekkoon moom Alain Ngalani ñu ci bari nag yaakaaroon ni moom moo naroon a nekk ki Euh, rëg-rëg mais ñeneen experts ñoom dañoo waxoon ni euh, combat boobu combat rëg-rëg la ndax bu defee nànk rek ànd ak prudence dina ko daan te noonu la fa demee en moins de cinq minutes la ko daal di dóor yóbbu ko kawo ba ni mu euh, ni mu ko gañee am na solo torop journal bu suñu làmb itamit moom ñee cinq minutes la ñu wax moom mu ne deux minutes la rëg-rëg daal di faire abandonné ki nga xamante ne moom mooy Alain Ngalani mu nekk loo xamante ne ni sag la fierté la contentement. ci contentement la comme ni nga ko waxee rek dëgg-dëgg tamit daal dina ci yëkkati ay doom nee na da koo dóor ba ni mu abandonné maanaam da koo dóor ba ni mu abandonné wàccu ko résultat bi maanaam mayu ko woon dara ci koo xamante ni daal mën nañu papaam la. am na solo torop naa Ndiaye président du CNG Bira Sène nee na lëg-lëg rëg-rëg. peut aller loin maanaam rëg-rëg mën na dem fu sore sore sore ci MMA. gis na avenir rëg-rëg bu sore sore ci li nga xamante ni moom moo di MMA bi ci fulla bi nga xamante def na ko ci fayda bi nga xamante ni am na ko ci jom bi ak capacité ak expérience bi nga xamante ni moom rëg-rëg mi ngi koy boole euh, ci tatame bi gis na ni daal bu ñu ko poussé tuuti rek mën na cee gagné ay milliards yu dul jeex du xaaj te ñu ngi koy ñaanal bu baax. ñoom itamit war nañu koo jàppale bu baax a baax a baax te xam ne ambassadeur la international la Luc Nicolas pare na pour organiser combat royal bi. ci le 25 juillet 2021 Ama Baldé ak Modou Lo ba pare nag premier face to face bi mu bëgg ko def en mois de mars. premier face to face en mois de mars la ko bëgg amalee combat Modou Lo Ama Baldé royal euh, bi nga xamante daal moom ñëpp ñu ko doon xaar le 25 juillet la ñu daal di jàpp date bi 2021 bi date boo xamante ni gëm naa ne saa bu ñu xëyee nit ñi amateurs yi dañuy lem 24 heures yi di lem yi ngir muy gën a mais bu changement amee mën na doon leneen. Ah, mën na doon leneen Amina Ndiaye waaye naqar ak tiis bi nga xamante ne ni moom la monde de la fanaanoo démb xëy yeewoo ko muy génnub àdduna Alaaji Boy Bambara. mi ngi ñàkkee bakkanam Amina Ndiaye ci atum bi muy am 78 ans la ñàkkee bakkanam combat bu mujj daf koo ñàkk waaye am na ci ñoo xamante ne ni fekkee nañu lu baree baree bari ci carrière ñu nekk ay xale sax la ñuy wax doon topp ci ginnaawam bi muy nekk mbër. dëggantaan ñoom ñoo jëkkati seen kàddu ko ci mel ni alaaji Bekaay Mbay ak ko ci mel ni suñu papa du jànjeeku moom su ma juumul 78 ans mooy juróom fukki ak juróom ñett moom la suñu papa booy bambara daal di génnee àdduna daal di ñàkk nag dernier combat bi mu nekkoon koo xamante ni fësoon na lool ci axlu làmb mu nekkoon koo xamante ni defaloon na lu baree baree baree axlu làmb na ndaw ñuy sësoon ci ginnaawam ñu ci bari da leen daan jàppale ñuy am ay combat ba tax na Père Bécaye Mbaye Père Bécaye Mbaye moom nee na ñàkk na ba faw ki nga xamante ni moom moo di idolam koo xamante ni dootu ko amati koo xamante ni moom ak ñoom ñaaxa démb la woon tey doo di ñëw Doudou Diagne ko tamit daal dinañ ci yëkkati kàddu nee na lutte bi moom moo ñàkk nit boo xamante ni dootuñu ko amati. yaakaar naa ne ñàkk nañu koo xamante ne ni Amina Ndiaye. bi mu ñëwee biir Grand Dakar doon na fa organiser ay mbapatam jékki-jékki defar école de lutte di fa taataan ay ndaw bari na ay ndaw yoo xamante ne ni nit ñi ràññee nañu leen ci làmb nit ñu xam nañ leen ci làmb jaar nañu ci loxoom ñu koy ñaanal suñu borom jéggal ko woyofal suuf ci kawam ba mu dajeek mala malaakal yërmande mu rëccu lépp loo xamante ne ni jaar-jaar la woon mu amoon ci àddina fi mu jëm gënal ko fuuf fa mu jóge ak mboolem jullit yegg fekk ak yim fa fekk ñu ñuy xamal que ni ko jébbal boromam tey ci samedi bi 15 heures incha allahu rabbi ci armeel yi nekk fii ci yoof ñu koy ñaanal rek suñu borom jéggal ko woyofal suuf ci kawam yaakaar naa ne leeral li loolu rek la woon leeral li loolu la woon Omar di ko yokkaat ñaan léegi di ko ñaana yàlla fu mu jëm gënal ko fii mu jógee mu tasanteeg yërmande suñu borom moom papa booy bambara di ko jaalee mbokkam yëpp nag njabootam yëpp bawuñu kenn ak di ko jaale waa axlu làmb mbokki jëri ngeen jëf ba lëndeeg jàmm incha allah jaa ngeen jëf